ak cant bu rëy rëy bis bisub sant eh, maa ngi ginnaaw ba ma nuyoo ñi may dégg ñëpp ak di ma déglu maa ngi yëkkati nuyoo ak ziar umma islamique bi yëpp di ko di ko def ci mboolee mu jullit di ndokkeel ñëpp rawatina nag cantaakoon yi rawatina sunu bokki taalibe murit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam bis nga xam ne Serigne Touba moo ci tagg yonent di ko ci kañ di ko ci wax lim ko wax ci xasidaam yi day bis boo xam ni mooy sunu tawféex di sunu njariñ li bëgg naa incha allah ñu amal ko fi teg lépp ci sunna sant ci Serigne Salim ndax ñun sunu lépp sant Serigne Salim ci ak fàttali bu ñu xamee gàmmo ba koy màggal Serigne Saliou tax Cheikh Béthio tax. ndax moom la Serigne Saliou joxoon ndigal ni ko na sos gàmmu fii ci Ndakaaru keroog ba mu koy sos da koo booleeg ay nag suukar café ak warga ni ko na ko sos fii ci njurul loola nag moo waral ñu am ci loo xam ni day mel ni ñun rek ko ci am mooy ginnaaw bu ñu doonee ay jullit mu war nu nu màggal bis bi danga am ndigalul Serigne Saliou fii ku ma gàmmoo am nga ndigalul Serigne bi am nga ndigalul Serigne Touba am nga ndigalul Serigne Saliou am nga ndigalul Serigne Béthio ndax Serigne Saliou sos gàmmo gi loola nag sunu tawféex la ci la nu ne di ko di ko di ko dundal saa su ne tey bëgg naa nu jàng fii xasida jàng fi alxuraan teg lépp ci sunna te te te fanaanee sant ba bët ah, waaw ah, mooy rek ñaanal ñëpp ñaanal képp kuy yeewoo ci réew mi sunu borom defal la jàmm def ko ci réew mi. defal ko ci sunu njiit yi rawatina Serigne Touba Serigne Mountakha ndax moom day day ndamul lislaam day ndamul murit yëpp sëñ Mountakha moo tedd moo sell ñu ngi fas ci guddi ñaan Serigne Touba yàlla na ko fi bàyyi. bàyyi ko fi ba mu yàgg fi lool ba àggale lépp li mu naan ci noonu laa koy ñaanalee sama sang ba sunu yaakaar tayet ëllëg Serigne Cheikh Serigne Cheikh mooy sëñ Béthio ci ñun mooy Serigne Saliou ci ñun mooy sunu bunt moom it maa ngi ciy profité di wax waa àddina cant gu ma ko amel cant gu am ci moom ci ànd bi mu ànd ak man dimbali gim ñuy dimbali saa su di ko ñaanal mu yàgg fi tëwér ak yàggam mooy sunu njariñ Mbàkke yàlla na fi yàgg tëwér